Uh -huh. halaan bikum jàngoroy coronavirus gi taxaw na juróomi fan a ngi nii amul kenn ku bees kuñ dégg mu dal Sénégal alhamdulilahi Le Soleil yéen a kaay ñu ko xamal professeur Moussa Seydi ne kim njëkk a dal nag faj guñ ko faj ba mu wér ñun bettu ñu de ndax fa ñoo jël suñuy matuwaay L'Observateur na ko hee def leen ndànk de diiwaan yi ci Sénégal hôpital ya docteur ya fa nekk amuñu ay jumtuwaay amuñu ay matériel yu doy ngir mën a jàmmarloo ak coronavirus gi donte nag sant yàlla ndax amul kenn ku bees ku ñu dégg ne jàngoro ji dalaat na la ñam daloon ñeent lañ kenn ka tane na ñett ña léegi tey ñu tane may lee leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne wàllu yoon Karim Wade amatina ndam ci kaw état bu Sénégal le quotidien yéen a ko xamal l'évidence yéen a kaay na ko si jamono jooju baayam Ablaye Wade Macky ngay jël oto ya ko état bi joxoon ba pare na di maye xaalis ak ay oto yu bëri moom ji tëram Macky Sall exclusif yéen a kaay na Macky sax fa am lu ko doy partem bële di APR ca diwaanu Ndar ña ngay rayante a yow seetal Awa Ndiaye ma ngay dugg ko attaqué Mansour Faye li aw Casamance Dakar Times moo ñu xamal ne Salif Sadio noppi na ngir négocier waxtaan ak njiitiram Macky Sall jàmm del si Casamance ginnaaw bu ko soldaaru Sénégal yi sëkkatalee ma ngay woote jàmm keneen ku nekk si jàmm ginnaaw fitna kaso gañ ko tëjoon gi mari Sagna bi mu génnee ba léegi na kenn xamul fu mu nekk na tekk tekkaaral waaye tey mujj naa wax si di du quotidien moo ñu ko xamal a yaaw seetal Guy Marius Sagna nee na Macky Sall moo jooyloo sama baay ginnaaw bu ma tëjee kaso ci lu nekkul yoon dundal démocratie ñoo xeex ba tax ma génn kaso maa ngi leen a kaay leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Mamadou Diop ISEG yoon teg na ko loxo ay ginnaaw bu xale bu jigéen bu ñuy wax jay na ba waxee na fa koo hëmbal ba pare bañ ko les ko yéen a kaay na ko yokk ci ne na fa ko a tamit jëlaloon ko appartement ba xëy wan loo ko lor mujj di ko bañ direct news ne hee def leen ndànk de Diop Iseg fañ ko piécé ndëgg sarax lañ ko laal ndax yëf yi xam na lu ca ñuul de xanaa xamu leen xale bu jigéen ba Jeynaba policiers yi ñu ngi enquête di xool ay atam xam nga fana 17 ans la am njortu nañ nag ne ëpp na di ans fa def 6 mois maanaam wàññi ay atam may leer la leer nañ ñi ne dàng ni jant tu subaar mooy ne juróom-ñetti fan ci weeru mars mooy bés bi ñu jagleel jigéen ñi waaye ren Sénégal benn jigéen màggalut ko ndax njiitire Macky Sall moo ko xaaye coronavirus gi la ñu bañ mu tasaaroo terewul si du quotidien xëy di ñu xamale ak soxna yu màgg ay jàmbaaru fàkk dëdd bokk na ca professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng ak ñeneen réew mi yéen a kaay moom jox kàddu yeneen soxna yu seen taxawaay fës lool Sénégal bokk na ca jëwriñ ji di Ndey Sali Diop ak yaay Fatou Diagne maire bu Ngàcc Nawde ca Kaolack ndangaan nekkit njiital promise ma ngay wax taxawaay bi soxna yi war a xam ba mën a demal seen bopp tribune yéen a kaay ne ren kay feetu 8 mars bi métti na ci soxna yi de waxuma sax feete giñ ko ñàkk a feete waaye fa xam ñu bëri ñu ci faatu aa tal ab accident bu métti moo xam ci yoonu Fatick wi ñeenti soxna faatu ca ak yeneen góor yu ñu ca faatu critique yéen a kaay na ko 8 mars bi kay xam nga si ban soxna la métti soxna suñuy wax Marème Diagne waxuma moom waaye ay mbokkam dootuñ gaaw fàtte 8 mars waa Grand Place yéen a na ko diiwaanu cees ngay wax 8 mars ren bi quartier ba ñuy wax Médina faal jëf ju ñaaw moom lañ fa def soxna soo suñuy wax Marème Diagne a yaw seetal soxna si daal benn waajum bëggante woon ak koo xam ne faram la woon fañ doon génn bu tudd Assane Gueye moo tiim soxna sa rocci paaka di ko ko bojj di ko ko bojj di ko ko jam fukki jam-jam ak juróom-ñaar ba xale bu jigéen ba faatu ñàkk bakkanam allah yéen kaay bi nag na ma yokkal leen ci xale bu jigéen bi fekk na mu ëmbu ñetti weer o oh. vox populi dëggal ko na Mariam Diagne étudiante la woon ca université bu cees ray gu soxor gu ñaaw moom la ko asan Gueye ray yaayu Assane Gueye nag ci yéen kaay bi nee na waxoon naa Mariam na ko na bàyyi sama doom ju góor ji ndax fa am problème xel yaayu xale bu jigéen bi tontu ko ci enquête yéen kaay na ko sa doom ju góor ji yàgg naa tëkku sama doom bu jigéen bi na fa koy rey lu xokk mali dalu ko nday bi ligi Assane Gueye mi ray mel ni ku naan leen waa léegi noppi leen ma atte leen wax leen ni yëf yi tëddee te ci kanam takk der koy waxee ñu ne ko acca waxal mu ne maram fa bëggante woon doon génn benn bés mu ne ma man du la sëyal suy ba nga noppalu ma ne ko gis nga bés boo dof dofloo ba dem sëy ak keneen beneen góor gu ma moy faa lay rey ba nga dee wett caaxaanu ma de ndax man ma laa bëgg ba dof ba miir ba jaxasoo xaw ma fu ma ne ah dem Maroc maram dem sëy ak beneen waay ab moodu moodu ma ko téléphone na ko la ma waxoon defoo ko nag ma la wax danaa ko def mooy danaa la rey waaye laata loola xaalis bi ma def ci yow delloo ma nekk fa di ma këy loo moo jëkkëram dugg na fii génn na faa bi na ko maram tamit porté na la plainte yow tamit kalaame na la yoon mu ne waa garaawul l'observateur na ko ñaata nga def ci moom mu ne lu ëpp ñetti millions financé naa ko ko bi ñuy génn maag moom bi ma xamee ngir rey maram maa tëb dugg ca néegam seen waa kër yaa ci suuf ma rocc paaka tiim ko jam ko fukki jam-jam ak juróom ñaar maa ko rey maa tay rey ko ndax dama ko bëgg waratoon a sëy keneen waa mame ne du sëy a a bu doon fanweeri million sa war ta tax nga rey ko te jigéen ñi bari nañ ku lambu yaa tey daagul fañ la nobee bu doon lislaam la yow it fañ lay rey rek su ko defee ngeen dem ca kanam yàlla layoo mu xàtte lem